dàq ki nga xam ne mooy na koy ñaawlu bu baax a baax ni ki démb capitaine Omar Touré nee na ana lii nag mooy li nga xam ne mooy firndeel suñu homme politique yi ci déndu Afrique il est temps de grandir maanaam jot na jamono ji ñu daal di màgg moom capitaine Omar Touré daat nay wax ne jamonoy colonisation ga daan nañ fay jóge maanaam jamonoy njaam ja moom nag Omar Touré daat nay wax ne jamono ji li nga xam ne moo fi sës maanaam mooy delluwaat sa sama wax sax ne est nag su ma jëndee ay nag commencé bay est-ce que teg loxo li nga xam ne mooy nag yooyee ak suuf sa waaye nag moom Omar Touré nee na sax ginnaaw loolee mën nañoo jéem a sax tere nag asamaan si maanaam mu daal di taw njiitu mi di président Macky moo teg pression école bii nga xam ne mooy IAM ngir nag ñu daal di koy dàq ba pare nag yónnee fa li nga xam ne mooy administration fiscale yéen kaay gi di libération nee ne nag démb Omar daal di laas li nga xam ne mooy ab gañota askan yu mel lu rakkaajo maanaam dajaleel ko xaalis bu bare bare vingt millions lañ doon wax waaye nag mbir ma dafa mujjee yegg nag ci vingt-trois millions maanaam taf-taf mbir mu gaaw bi bëgg a dee yàlla moo aay si póotam fuur da ngay fóot ba pare weer mu daal di tawa yéene kaay gi di mi ko di jeex xëy duñu xibara nan ñu confrontation bi nga xam ne moo doon am ni ki démb diggante Adji Sarr ak ki nga xam ne mooy Ndeye Khady Ndiaye ba ca kanamu doyen de justice ne ma maham ka ca mooy Adji Sarr nee na nag jamono ab procès lay sàkko yéene kaay gii di libération xëy dañu xibaar naan ñu déglu bi nga xam ne doon nañu ko déglu aji saar ni ki démb ak nday xadi njaay déglu ba yàgg na lool min wi lañ fa jógee yéene kaay gi nee na kenn ku nekk nag dafa dëggal boppam yéene kaay gi du l'observateur nee na aji saar ni ki démb ca tribunalum ndakaaru ba wax na lu doy waar a doy moom aji saara nee na nag salon boobe li nga xam ne mooy règle bi góor bu fa ñëw daal di mancé woo maanaam da ngay simeeku ba set wecci ñoom jigéen ñi nag sol ak moom aji saara daat nay tuumaal ki nga xam ne mooy nday xadi njaay ni ki démb ci kanamu doyen des juges lu jëm ci wàllum adultère digganteem ak Ousmane Sonko maanaam da koo tuumal ne Ndeye Khady Ndiaye daal dafa am loo xam ne da ko doon séq ak Ousmane Sonko moom Adji Sarr démb bëri na ay laaj yoo xam ne bu ñu ko laajee day lank kandaare bañ see tontu wax ne jamono ji nag li nga xam ne moom lay xaara maanaam mooy jàkkaarloo ak Ousmane Sonko Ndeye Khady Ndiaye ni ki démb nag yàkk na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye na ba koy wax ko yow kàcc kan nga moom Ndeye Khady Ndiaye na Maître El Hadji Diouf ci kanamu doyen des juges Ndeye Khady Ndiaye nee Abdoulaye Diouf xanaa yow da ngaa fàtte ne ab avocat nga bu ñuy tuumaa lu jëm ci wàllum viol yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu démb naka ca tribunal ba am nañu bari ñoo xam ne dañoo ñëwoon ngir teel tànk ki nga xam ne mooy Adji Sarr waaye dañ leen a jox xaalis de kenn ku nekk cinq francs ñu yor ay pancarte ba Adji Sarr duggee rek la gars sànni pancarte ya wan ko ginnaaw dem ñi yéene kaay gi du l'observateur nee na dossier bi dossier démb a moom la indi tribunal ba moom Adji Sarr naka maanaam nag mel ni kuy défilé kanam gi belli lool mu mel ni ko am a moom day Xadi Njaay ni ak Adji Sarr mii de bokku dafa am ñu nekk ci ginnaaw Adji Sarr yéene kaay gi de la sa nee na Adji Sarr démb comme Essar ci biir tribunalum Dakar yéene kaay gi de lay seko nee na lu toll ci fukk ak ñaar ci ay waxtu yoo xam ne déglu nañ ko Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye yéene kaay gi la tribunal sa xët mu njëkk ma Adji Sarr nay wax ne Ousmane Sonko daf ko violé ay yooni yooni yoon diggante 2020 ak 2021 Ndeye Khady Ndiaye nag ca kanamu doyen de juge moom nag setal na Ousmane Sonko ba mu set wecce yéene kaay gi di évidence nee na njiitu na yërmande maanaam nag wàllum parrainage bi Macky Sall ay màgget la jëla Moustapha Niass mi nga xam ne am na quatre-vingt-deux ans Macky Sall ne ko demal Kaolack wutal may parrainage Robert Sagna mi nga xam ne am na lu toll ci quatre-vingt-deux ans Macky ko sigi coor na ko wutal ma ay parrainage Maître Sidiki Kaba mi nga xam ne soixante-onze la am Macky Sall ko fi nga xam ne mooy Tamba yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy dañu ñu xibaar naa ñàkk nag su nag maanaam saytu giñ ko war a saytu jàppale giñ ko war a jàppale bu doon loole nag am na si maanaam toppatoo gi kon nag faatu gii dina mën a ñàkk yéen kaa gi xëy ñu xibaar naan ñu intersyndical bi nga xam ne moo nekk Louga ñoom nag jamono ji li ñuy sàkk mooy Abdoulaye Diouf Sarr ñu daal di koy dàq ci bopp ministère bi ñu denk wàllu wér gi yaram gi wàllu wér gi yaram gi yéen kaay gi di Dakar Times xëy duñu xibaar naan ñu nag réewum Sénégal ci lu jëm ci wàllu wér yaram gi am na nag ay performance yu mag yoo xam ne daan na ci ama ministre Abdoulaye Diouf Sarr daan nay wax